jeudi 20 février 2020 ñëw ci yëglikaay yi moo xam sunu lamb la record l'observateur ba ci leewtoo point net fu nekk tey ay xibaaru lamb xëy na fa bu ne yëglikaay bi di sunu lamb la moom dafa ñëw ci diggante Modou Lô ak Ama Baldé mu mel ni ki nag combat ba moom bu nekkee des kon nar a hypothéqué daa mel ni kon daal am na ay promoteurs yoo xam ne fi mu nekk ni day ñu ngay daw ca suuf maanaam daal di jëf-jëfi ndew ruudu bëgg jaar ca suuf jël li nga xam ne moo di combat ba tëgg ko mu mel ni ki nag ñaari promoteur daal la ñu yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey xamal ñu ne ñoom moom ñu ngay dox doxinu ndew ruudu de ngir combat ba nag ñu jaar ca suuf rocci ko dal di koy tëgg ngir amateur yi man caa jot yëglikaay bi moo xëy ñëw tey dina ko wax keneen koo xam ne moom yëglikaay bi xëy na di laaj est-ce que ndax gars yi dañ kaa ragal wala lu xew muy boy ñang ndax bu dee Gris Bordeaux la cinquante millions lay laaj wala boog fay nañ ko cinquante millions mu ne du ko laal Balla Gaye de moom itam di laaj kase boo xam ne nii bu seer a leer la moo tax yëglikaay bi xëy tey samp boobu laaj bu dee Gris Bordeaux ma la nag dañuy dem fa nga xam ne moo di ca l'observateur fekki ko fa yëglikaay bi xëy na tey séq moom waxtaan wu yaatoo yaatu Gris nag ñëw na ci adversaire yi nga xam ne ñu ngi ko koy proposé boobu ba tey moo xam Balla gay 2 la Boy Niang wala Bombardier wala tafaatin Tine daal ñëw na ci loolu nga xam ne ni moom lañ koy proposé ci yëglikaay bi nga xam ne moo di obs waaye giri yamu ca am na leneen loo xam ne wax na ko ci l'observateur jàpp na ne day rey làmb maanaam daal fexe lamb dee ne na boo ko defee mu ngi mel ni daal benn bombe social boo xam ne daal da nga koo tekki ndax bu keroogee moom mën naa jur loo xam ne nii day du baax ci réew mi loolu muy waxi ki nga xam ne nii moo di Gris Bordeaux ba nga xam ne nii moom moo di l'observateur bu nu demee fa nga xam ne nii nag moom moo di ca record moom daa mel ni CNG bi daal di leer ba leen fi mu nekk nii ndax malaise nekkul ci seen wala boog mu jege leen wala mu dugg fa ba pare ndax nag yëglikaay bi ne boo bëggee dégg dëgg daal Abdou Badji ma nga xam ne moo doon directeur technique ba moom démission woon na maanaam daal tekki woon na ndombal tànkam bu yàgg bi lettre de démission ñu nangul ko ko ca 11 septembre 2019 gars yi nangul ko ko ñu ne déet ne waay Yékini moom itam ay tànkam fi mu nekk nii daal ci biti la gën a jegeñ ka nekk ci biir wàllum lutte olympique ba tamit ak résultat nga xam ne am nañ ko te nekkul loo xam ne lu neex la wala boog lu baax lutte avec frappe ba tamit mu mel ni lañ ca defoon ab commission wala boog lutte sans frappe ba commission bañ ca taxawaloon daal moor nee la ko yëglikaay bi record tudde maanaam loo xam ne dafa juddu ba pare daal di dee waaye mu mel ni ki nag ba tey ci yëglikaay boobu di record moom Thierno Ka ma nga xam ne moom lañ dénk wàllum communication ba mu ngay wax ne na day wàllum malaise moom mu nuy wax jàpp na ne loola moom amu fa pas du daal daal di wax ci malaise boobu nga xam ne ñu ngi leen koy waxal te seen biir kuréel googu nga xam ne ñoo yor làmb ja seen kuréel googu nga yor yore làmb ja nag mu mel ni ki bu ñu demee Leewtoo point net moom ñu ngi xamal ne kii di Pa Abdou Fall moom ci combat war a dox ci diggante Siteu ak Papa Sow tey lay dem nag fa nga xam ne mooy ca CNG ba régulariser combat ba ngir la 5 avril ñaari mbër yi war a jàkkaarlo te lu jiitu loola bu ñu jógee ca loola nga xam ne moom la ñuy defee tey moom li leer ba leer ajjuma jiinu jëm tarkindaa bi ak piment bu ak piment bu parcelle ba daanu daje fu ñuy daje nag danañ ñëw fa nga xam ne nii mooy ca stadium Maris Ndiaye ca Grand Dakar daal wala boog ca Demba Diop fa la ñu fas yeneen daje waxante waat fa muy Siteu ak Papa Sow ba tey bu nu demee nag nu continuer ci yëglikaay yi keneen koo xam ne nii moom combat mu tëgg wala combat bu mu tëgg moom la mu dig ñaari mbër ya neex na lool muy prince diggante Modou Dia ak caat xam le na leen daal ku ci jaayu lopp ci ay billets moom jàppal ne ab 4 mu ngi lay xaar di nga ko war de ndax ku jaay lopp ci ay biir lañ lay laaj moom boo bëggee dégg-dëgg 4-4 ba des na la ko jox nga yóbbu ko sa kër loolu waxi prince la waaye bu ñu demee ba tey ci yëglikaay bi nu sunu làmb dañ fay dellu kan fay fekk nag mooy baaba Jaw borom Thiam production baaba daal diggante soq ak gàmmu géey moom feet la ko fas yéenee def pour le 15 mars maanaam làmb joo xam ne daal événement exceptionnel lay doon ndax nag li leer ba leer jàpp leen maam Mor doomu Faas da cay bëri ak ki nga xam ne nii moo di Paul bu daaru te ca yem ki nga xam ne moo di Mbañi Kayre ak ka nga xam ne moo di Jacob Baldé dañ cay daje de muy ay combat yu rëy rëy waaye Mut Séréer tamit da ca fas yéenee daje ak ki nga xam ne nii moom mooy adversaire am ba mu fas yéenee bëreel wala boog moo kàngam loola càmm production moo fa jaar di Baba jaw la 15 mars lay am yëgli kay ba xëy ñëw tey dina ko wax beneen combat boo xam ne tamit prince bi doon tudd sànq moo ko taxawal muy ñaari mbër yoo xam ne xam nañ leen ci simple bi muy hôtel Dior ak Obali ñaar ñii moom jàmmaarloo fas nañ ko yéenee def moo fa jaar Fallou Ndiaye nag la nar wax na ko wala ñaari mbër yi mu tëgg la ñu nar moom waxante nañ ko samedi jii nu jëm nag la ñuy daje ci arène nationale ba muy caatu yaraax ak serpent mu mel ni ki ñoom ñaar nag fëggante nañu ku ci ne sa morom ay xeer diggante lu méttee méttee ngir nag buñ ca yeggee samedi moom lu waay man def ko ci sa moroom bu kenn yërëm kenn loolu la ñu diggante Fallou Ndiaye moo fa jaar ka nga xam ne nii nag boo Bombardier da koo làppoon làpp yu méttee métti ca Genève muy Rocky Balboa moom daa mel ni làpp yooyu ba tey jogut ci moom ndax nag daa mel ni moo ko soor jom ba tax fi mu nekk nii day mu ngay yokk ay entraînement bu baax a baax nag ngir fas yéenee nag bés bu amaateb combat wane boppam bu baax a baax Rocky fi mu nekk nii ci loolu lay dox di ca xëy di ca gont yëglikaay yee xëy ñëw tey wax nu ko rawatina sunu làmb waaye làmb bu simple tamit mu ngay yëngu di yëngal ndax nag yëglikaay bi xam nañu ne day li leer ba leer ca moom la ko commencé le 27 ba vingt 29 février moom 2 millions 800 mu nga fa ñu teg muy xaar bëreekati simple yi te yemee su ca de ndax fa nga xam ne nii tam moo di simal vingt 21 ba le 24 février moom mise bu mag tamit teg nañ ko fa fukki nag ak benn maanaam 11 bëf ak 300 000 francs ñu ngi ko fa teg caat yof moom la mu waxoon fa nga xam ne mooy ca Leewtoo TV sunu làmb xeyaat na tey ñëw ci yeesal ko caat daal Modou Anta la tegi bëtam double moteur jën kayre wala lees de ñii daal la bëgg a bëreel ginaaw ba mu daanee bébé julde jël ba mu ko daan dimanche ji nu génn waaye yàgg maar li leer ba leer li Gris doo wax waras na caa wax ndax nag luy rey làmb moom waree su koo wax ndax nag li leer ba leer làmb ji am na ñoo xam ne nii loo ci mën a dégg ñu nga cay tedd di ci terle rawatina mbëri làmb yi waaye ñoom itam ñu ñaax leen ci itam nag yenn kase yi buñ ko gisee est-ce que du ngeen ko jël bëre ndax nag situation bu ne na mu ñëwee maar noonu lañ ko war a jàppee boo ci bëggee génn mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen si jàngante arène Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar maa ngi ah, ko saaku kii nga xam ne mooy combat Modou ak Ama Baldé moo xam ne dara wóortu Luc Nicolaï mu ngi ko tëgg ren nee ñu nag am na ñaari promoteur yoo xam ne dañoo bëgg suufa ki nga xam ne mooy Luc Nicolaï pour jël jëlaat combat bi taxawal ko seen bopp waaw loolu day yaakaar naa ne li ma xam daal mooy lim si mën a wax mooy combat Modou Lo ak Ama moom askan wee bëgg askanu làmb yàlla dogaloon lig Nicolas taxawal ko bi mu ko taxawalee nag yàlla dogal mu dem si kaso ñuy ñaanat lañ doon ñaan rek lañ doon wax ndax suñuy wax du ci suuma sa soppeeku ba ilaayo mi duna xanaa mu génn ñu koy ñaanal yàlla fa mu ne mu génn faak jàmm ba ñëw tëgg combat man Babacar loolu laay ñaan waaye bu ñu demee tamit ba mu leer na ne loola mënta ne ndax nag euh, ay olof ñu koy mën a defee ci mu rafet entre sénégalais ak sénégalais waaye nag bu dee li ñu tax may wax li tax ñuy wax suufu moom li tax woo maanaam moowu suufu jóg ci ba ci baatu olof ah loolu moom su keroogee pour man suñ ko defee est-ce que dina doon lu gën yaa ngi dégg parce que mu ngi mel nit koo xam ne yéen bokk dara mu bëgg dara yaa ngi dégg dem ba xëy na am xaw xawcaatale nga jaar ca suuf nangu ko te yégewu ngeen ci loolu bu keroogee mën na bañ a rafet mais li gën a rafet mooy ñaan li génn benn su yàlla defee mu génn mu tëgg combat am suñu demee ba xam ne loolu mënta ne tamit ku bëgg combat bi staffu liga ngi fi liga ngi fi bu yaakaar naa ne bu ngeen ci waxee bu la ko joxee nga tëgg ko loolu dara du ci ne pour man mm. waaw nga xamal nag ki nga xam ne mooy euh, euh, prince prince daal ne ñu taxawal na ne na combat bi nga xam ne moo taxaw diggante Modja ak Thiat pour le 13 euh, avril ne ñu daal am na nombre de billets yoo xam ne ñaari mbëri suñ ko jëndee dañ leen dañ leen jox 4 4 Babacar waaw loolu day jar naa jëndi billet ndax 4 4 nag fi ne nii xam naa ne ku ne ittewoo ko ci rawatina man kon defe naa Prince loolu mu bëgg a def tamit innovation la maanaam képp le temps de billet boo xam ne nii moom la ngay jaay ci bis ba maanaam billet nombre bi nii lay toll boo ko jaayee yow dinañ la joxub 4-4 ah loolu defe naa kon Modou ak Thiat am nañu aw sas ngir ngir seen combat boobu. ginnaaw aussi dañuy xamal ki nga ne mooy Boy Niang di euh, doomu Dogol nee nañu est nga xam ne mooy Gris delloo na avance su 50 millions Balla moom mi ngi xaar cachet bu rëy pour mën a bëre ki waaw waaw ragal day xam nga baatu ragal moom day xaw a pour ñu wax ko parce que pour man ki nekk mbër takk ngeen di bëre pour ñu ne daa ragal dana xaw a jafe dafa fekk ne nag làmb léegi dafa nekk ci ba nga xam ne nii mbër yi seen i intérêt dañ koy bu baax a baax a baax moo tax di nga ñëw bëgg benn combat proposé yàgg maar ak baax nga dem ci yàgg la koy fay du ko gënal wala la muy xool sportivement mbir yi du ko arrangé tax mu bañ ko ne lii moo koy arrangé man dama ci côté boobu laa koy teg quoi mais yaakaar Gris Bordeaux it fa mu jaar ci lamb ba yegg si fii mu toll tey parce que ñu naan léegi carrière am jeex buñ ne maa ragal na mbër du ma ko gëm dafa fekk ne rek xëy na problème mu kase la ak ay intérêt yoo xam ne intérêt sportif la yooyu la ñuy xool ba nga xam ne nii xëy na ñu ci déggoo yàlla mën na def kenn ci ñoom jël ko combat bi bëri ki nga xam ne nag mooy baaba Diaw te mu signé ak ki nga xam ni mooy waa Leewtoo nee te mu taxawal combat Sokh ak Gamou Gueye pour le 15 mars nee na nag si bis ba mi ngi préparé événement bu exceptionnel Babacar waaw Baba Diaw moom du ñu mën a def lu dul ne ko mention ndax itam ren la ñëw si làmb ji en tant que promoteur Thiam production ñuy nuyu ay collaborateur mi ñoom Abba Amdi Moustapha ak ñoom Modou Roubé gars yépp ñu koy jàppale ah bi mu ñëw itam indi na lu bees ndax combat boo xam ne ni tëgg na ko ñëpp doon ko xaar Pape Ndoye Jackson gis nga fa mu mujj Mbagnick Kaïré doomi Boy Kaïré Jacob Balde doomi Maguizil Balde maanaam papa Balde mooy papaam yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana foofu tamit mu indiwaat fa lu doy waar muy ñaari doomi mbër ñu ne déet ne waay ah, yaa ngi dégg non muy journée boo xam ne daal pour le 15 moom ah ba waaye yow man soq gàmmu gis dama koo tegee ne yii ma la wax nii jàpp ko rek yii rek dafa doy yii ma la wax rek doy na sans compter soq gi te na ngeen ci xaar ay yu neex nag da ngeen ko ci gis ci Leewtoo TV ndax olof a ko wax ku la yëkkal xël nga yëkkal ko gën ndax ñoo yemi gàjjoon nday Kumba Faal waa xamoo xël kooku ku ne ca kaw gaa ko xam yow gu nekk ndakaaru nga te naar nga boole ci <laughs> Babacar nag si nga xam ne mooy site Papa Sow journaux yëpp tey moom la ñu euh, joxe nañu information mi sunu laam observateur record Leewtoo point ñoom ñëpp nañu tey jii la euh, ki nga xam ne mooy Abdou Fall dem CNG pour régulariser bi xam naa nag face à face mu war a préparer moo tax mu dem régulariser euh, CNG combat bi ndax règlement bu bees bu CNG génneel waaw loolu moom dañ koy ñaanal yàlla rek Pa moom tamit di ko wax mention spéciale li tax mooy saa yu dina indi ay combat yoo xam ne amateur dinañ ko soxla rawatina combat yu mag boo xoolee saison yi at yi ñu génn yëpp ci noonu la nekkee ba ren tey am na yeneen yoo xam ne sax xëy na yàllaa ko dogal mais heure bi fa waroon na fekk mu taxawal ko muy diggante Ama Baldé ak Tapha Tine gens yi dégg mais taxul woon mu bàyyi ñëw na jël tey Siteu ak Papa Sow te combat la boo xam ne événement la boo xam ne ñu ngi koy xaar pour le 5 avril tey mu koy régulariser au niveau CNC ñu koy ñaanal yàlla di ñaanal promoteur yëpp combat yu ci waay sum rek yàlla nañu ko réussir te yemu ca ndax suba ku ne xam na ne Maris Ndiaye Siteu ak Papa Sow fa la daje te daje boobu nag dana jax de ndax fi ne nii wax daa jot waaw lay lay la la tarkindaay piment face piment maa ngi sax maanaam piment face waaye loo ci face la sax nag ndax itam lu jëkk waaw mënees da mënu faa dañ ndax foo juddoo moom. instant ba sax waa face la instant ba sax waa face ak nga cay gisaat waaw <laughs> ak waa parcelle 19 gële ma xam nañu waaj a Papa Sow non moo lay wan ne suba moom face à ba rate ko du ah déet day mën a ñàkk c'est maa koy dar jógeeg moom jàmm gën jëm si jëm si jëm si Maris Ndiaye maag Lamine bu Lutte TV Papa Sow buur géwél ak ka muy àndal la koy dar jëm si Maris yow yaay bind yàgg maa rey maay wax maa ne dawal ñu jógee ca Tarkindaay utal si Maris Ndiaye buur géwel jóge fële moom tamit parcelle ak piment yi jëm si Maris Ndiaye dina baax comme ni yàgg ni muy waxee ni jógee nag suñu jógee nag foofu nañu ñëw nag si observateur boobu nag mi ngi dalal ki nga xam ne mooy troisième tigre de Fass mi Gris Bordeaux moom leen euh, euh, dox nañ ko maam ki nga xam ne mooy Balla Gaye Boy Niang Bombardier ak Tapha Tine moom daal lu ma gis nee na bëre ak bomb ak Boy Niang 2 du ko apporter dara sport euh, sportivement peut-être financièrement waaw loo si mën a dégg xaw ma dina ko apporter xaw ma du ko apporter waaye daal li ma xam mooy moom Gris Bordeaux lamb leen na ci am rek lamb dug maas dabante la yaa ngi dégg te yaakaar naa dafa jóge ci défaite contre Balla Gaye 2 def année balance kon tey bu ñu doxee digganteem ak booy Niang man pour man bu ko neexee mën na évoquer ay raison wu xaalis yaa ngi dégg mais yaakaar naa war na mën a nangul booy Niang ñu bëree mais itam tërewul mën na bëre ak Tapha Tine ndax loolu dër bi la te dër bi ñu ngi ko bëgg a ci làmb ndax bu ñu nee Gris Tapha Tine loolu derby Medina day daal di juddu mook Bombardier combat revanche la mook Balla Gaye 2 tamit dafa jàpp ne Balla daanu ko te Balla jàpp ne ne daan te nee na bu ñu bëraate mu daan ko ci deux minutes xaw ma une minute kon defe naa ne combat yëpp bu nekk valable na pour moom man adversaire yi ñu wax yëpp booy Niang moom Bombardier Balla Tapha Tine ku ne adversaire potentiel nga pour Gris Bordeaux waaw suñu jógee nag fi nga xam ne mooy observatoire nañu dem fi nga xam ne mooy record record nag nee ñu euh, ay mbir daal neexatul foofu nga xam ne mooy CNG parce que nee na bi génn na dem muy Abdou Badji nee na nag ki nga xam ne mooy Yékini mi ngi mi ngi génn mi ngi neen euh, mi ngi génn aussi fi nga xam ne moom mooy euh, CNG ñëwatul ñëwatul réunion ki nga xam ne mooy Lamine Sow aussi ñëwatul moom tamit réunion lutte olympique moom seen Algérie bi nu mujjee def championnat d'Afrique mooy résultat bu gën a catastrophique dëkk bu Sénégal de participer ci championnat d'Afrique la kon daal toogaay yi defaat yi fexe mu jub xol lay métti ñu jéem koo dàmp wala ñu maase ko wala bu dee lu mën a dañ la ñu dindi ko sànni ndax yooyo fi mën a ne malaise nag la ñu wax malaise nag yaakaar naa mooy bopp bu jaxasoo ba daanu sax mën na caa am wala nga tëddanu la neexul kon yooyu nañ ko jéem a jubbanti ah Abdou Badji moom defe naa ne ku ne xam ne lu mu apporté làmb senegal ci DTN yaa ngi dégg Yékini itam personnalité le si làmb réew mi tey ci kàddoom ci sport bi mu doon def ak lu mu wonta doon ñun ñëpp nag bu ñu gisee ne seen taxawaay xëy na ki watul kee démissionné nag yëkkiñ taxawaayam ñëwatul noonu nañ ko xoolaat daal ñu fexe luy jëmale làmb ji kanam daal baax na si kàddu yoon leen tàggoon lay yox di daje suba parce que dañoo am gan boo xam ne kenn xaaru ko fa woon muy Aja Faye madame Ndiaye moom moo fi ñëw léegi nii si revue bi moo tax a yàq revue bi Babacar waaw ñu ngi koy nuyu Aïssa yaay Paate maa ngi koy nuyu bu baax wax di ko ñaanal jàmm di nuyu mère Sougou di ñu tam sama série ba caat fay maa ngi lay bégge bu baax a baax a baax waaye du mën a ñàkk lab soli géey maa ngi koy bégge dañuy commenter vidéo yi Cheikh Bass borom Petersen taalibe Cheikh wala taalibe Serigne Mbay si Abdou ah maam Modou Guèye maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax Lamine Lit TV maa ngi koy bëggee moo may wonoon xam nga moom yàlla daa dogal ñu bëri lu ñu bokkule xam nga maa la bëgg dafa gën a wóor te moom moo ma bëgg man ma bëgg ko Lamine Seck maa ngi koy nuyu di nuyu Looro Looro yépp di nuyu ñoom tuuti Yaay Sarr ñoom Khadiros Ndiaye ñoom Benzema Dem Ngañ Sow ah gaa yëpp Abdoulaye mbay Baye Sall ca Paris ah waa Brésil yi duma leen fàtte waa Argentine waa Norvège Arabie Saoudite fu mu mën a doon Mauritanie fu waay mën a ne di suivre Leewtoo TV nday kumba ñii dañoo jar di tudd kiliif xaalis a koy fay da ngay jënd connexion pour mën a seetaan kon ñooñu amuñu seen fay yàlla na seen jàmm yàgg